baabul xas bi lii mooy buntub daan jël ku ëpp nit doole nangu yëfam fi saasay saasa dañuy jàpp ne moo garanté bi yàlla dogaloon lool dee fa saasa mbaa mu lu yàqu yàqu fa saasay saasa xam dogal ba rek ñëw ne moom defu ci dara yi dutee ñu ne ko fayal ndax ñu ne kam ñëwee bay nangu yëfi jàmbur ci doole gannaaw bu fayee ba noppi itam deesu ko bàyyi mu dem àttikat bàyyi seet nu mu ko war a yare ba bu ëllëgee du ko defati bu ko dee dóor bu ko dee tëj kaso bu dee boole yaar yëpp bu ko dee dóor tëj ko kaso ba noppi dàq ko mu dem feneen génne ko foofa it lu ci yàlla na ko def ki nangoo fi jàmbur ci doole bu ca boolee def ca loo xam ne yàq na ko mbaa def ci dara lu koy yàq mbaa lu koy laatul waaye nag du ko téye ba nga xamee ne loola lam daan jar ca marché ba soppiku na benn gën naa cher mbaa gën naa yomb bu ko woon di àtte day wax boroom ne ko bu la neexee bu la neexee nga jëlaat sa yëf ñu seet li nga xam ne moom la ci sikkal ma fay la ko boole ci bu la neexee itam nga génn ci ba set ci wecc mel ni mosoo koo moom ñu seet bis ba mu ca defee lii fu xayma ja toll woon ñu fay la loola buñ ko xosee tànnloo ci yow yaar nag kenn tooñatu ko lu ko ci neex rek mu def da koo tudd fii ci buntub daan jël waaye dañu bëgg tënk ne yëfi jàmbur moom tey ak bañ a tey lañ ci yemale ku yàq alali jàmbur rek doonte teyoo ko war ngaa fay bu la jéggalee nag baax na waaye bu la jéggalul nga war a fay bu dee lu ñuy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi na fay lu toll ne loola bu dee loo xam ne kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko wàññi moo tudd al muqawam ne ki mu rey xarum jàmbur mbaa mu yàq rajub jàmbur boo xam ne bu yem ak moom képp képp yombut wala leneen ci mboolem yi nga xam ne rek du lu ñuy peese boobu nag du lu ñuy wàññi ku ko yàqal nit te baalu la dañuy xayma ñoom ña xam loola moo war a fay mu fay ko su fekkee da koo daan jëlit noonu la bu daanee fi jaambur jël damay mis li yiw li ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi na fay lu toll noona bu fekkee mu xawam la lu ñuy seet wëlëram rek la du lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi ña ko xam wax la mu war a fay mu fay ko ba noppi ñu bañ a fàtte yar bañ koy yar moom mi daan jël dafa wax bàyyi ko jigéen ju ndaw waaye moo bàyyi ko ci jigéen ju weesu ndaw tey am doom rek benn lañ jamono yi jaam amee ku ëpp doole nit nangu jaamu bu jigéen joteeg moom kon dañuy jàpp ne njaaloo na daal di koy géttan géttanu njaaloo ba noppi nag bu ca doom amee ñu ne doom ji ab jaam la boroom jaam bu jigéen baa koy moom xam ne kookee daañu def doomu ab jaam te du ca mën dara ku fekk suufu jaambur mu nangu ko ci doole dal cee tabax mbaa mu jëmbat cee garab bu ko yoon di àtte da koy wax ne ko delloo suufu jaamu si na meloon na tabax yi deñ na garab yi deñ da nga maasale ko ba mel na meloon buñ ci juboo nag mu mën faa bàyyi jëmbi tabax yaa garab ya ka moomoon suuf sa féetewoo ko dañu seet ku tojoon tabax ya ba mu daanu buddi garab ya ba mu lasu fi suuf ndax dana am dara ci njariñam déet ñu xayma loolee nag xaymay tajut yaag la siit ja jox ko ko tam bàyyi fa jëmmi tabax yaa garab ya loolu nag mel na ne moo gën a noppal ka fa defoon tabax yaa garab ya ci doole ndax ndegam da ko nar a buddi rek toj rek mu daanu te xëy na bu ko buddee mbaa mu toj ko mu yàqu mu bàyyi fa jëmm ja dañ seet ku ko tojoon ba mu daanu buddi garab yi ba mu lasu ci suuf lu ca yàlla ci njariñ ñu fay ko lu toll noona lu mu tuuti tuuti moo tane ci moom loo ci xam ne nag ca tabax ba am na wëlër nii ci kaw ñàkk gee toj tabax bi rek mel ne peinture mel ne peinture ba peinture tabax mën naa seer waaye buñ tojoon tabax ba du féete fenn kenn du ko faale lu mel noonu nag biñ dee seet luñ ko cay jox kenn du seetaale lu mel noonu dañuy seet kay buñ ko xaddee seng lu mel ne seng ya moom ku ko xeddi woon du ko tee baax ak bunti ya bu dee bunti weñ baa dénk ba tey am na njëriñ yooyu la ñuy xayma seet nag luñ ko ci war a jox ñu jox ko ko rek tam bàyyil fa borom suuf si lam fa defoon lépp bu ñu seetoon nag ba ne loolu day war naa tolloog téeméeri junni waaye nag ku woowoon ab maçon di ko ko tojloo ko xeddiloo dana ca fay ñaar fukki junni dañu wax ne kon waa ji na fi bàyyi li fi nekkoon lépp bu ko neexee dañ jox ko juróom-ñett fukki junni dañ cee génn ñaar fukki junni yi nga xam ne ci doon woo ab jàmbur muy toj ak a dindi moom lañ koy fay loolu kenn du ko ko fayaale ku nangu woon suufus jàmbur dal cay ji moo xam dafa faraasu moo xam dafa tex loolee mu jiwoon nag jotuta sax wala sax na waaye fa mu toll kenn mënu koo jariñoo day door a sax dong bu ko yoon di àtte ci yooyu jamono day wax borom suuf sa ne ko jëlal sa suuf te jëlaale lim ci jiwoon te saxut mbaa sax na waaye kenn mënu koo jariñoo fabal lépp ka ko nangu woon ci doole ñàkk benn yoon ki nangu woon suufu jaambur bay ja ba ko yoon yëgee ba di ko àtte fekk mbay ma mënees na koo jariñoo dañ koy wax ne ko yaa moom sa mbay kon daal di koy buddi delloo suufu jaambur si daga mënees na koo jariñoo dindi ko jariñoo delloo suuf si boroom te du tey ñu yar ko dañ koy xewoon ci gannaaw bu ko neexee itam mu bàyyi ko ca noona borom suuf sa féetiwoo ko dañ seet buñ ko buddi woon ba mu tëdd fi suuf mu nekk ay buddi rek fu njariñ lay toll borom suuf si fay ko lu toll noona te moom it daañu ca seet buñ ko doon dindiloo jaambur mu di ko dagg ka dajale luñ ko cay fay dañ koy génne ci xayma ja door ko jox la ca des ni nga ko weesoon léegi ci gannaaw bu nangoo suufu jaambur nag ba tàmbali caa bay ñu seet ne foofu moom mbayum nawet rek lay doon bu bët sébbee ba nga bay daal bala ngaa mën a bayati bët sébbiwaat waaye nekkul mbayum jamono ji la soobee kooku moom ka nangu suufu jaambur ba jot caa bay dañ koy wax ne ko faral wéyee la rek mbay mi dañ seet loo war a fay ci suuf si luyaasu at nga fay ko luyaasu at moom borom suuf si léegi ñu waxoon ne ku nangu suufus jàmbur bay ca bu fekkee saxagut mbaa sax na waaye amagul njëriñ dañuy wax ne la nangu lay suuf si jox borom nga ñàkk lépp boole wuñ ca nag bu fekkoon ne daa mel ni sunu réew mi nga xam ne waxtu bay wi bu jàllee faaw rek mbay jeex na ba déwénati lu mel noonu moom dañuy bàyyi ka xas bay ca suuf sa mu bay rek téye mbay ma defar ko dañ seet lu ñu war a fay ci lu yaa suuf sa ci at ma daal di koy fay boroom bu doon nag suuf soo xam ne moom machine a koy suuxat machine bi du paan benn yoon saa yu la neexee bay mbaa na yàlla bindi foofa saa yu nekk ma ngay taw kon lay am àtte bee nga weesu woon ca gannaaw kee nga weesu woon mooy nga xam ne daa fekkoon suuf si jaamur mu tey ko dal cay bay mbaamu tabax ca mbaalu ko nuru kii nag moom dug tey dañ ko ko mayoon mbaa ñu sarax ko ko mbaa ñu jaay ko ko mbaa mu doon ko ci gàttal daal la ko jotale ca suuf sa du ak jubadi waaye nag am na ko wax ci yoon ba ne moo ko moom yoon ne ko wax nga dëgg kon kenn ko wax dara lu may bi nga ci xasee bay àggaleel sa mbay dafay rekk lu yaasu suuf si lu yaasu at lu yaasu suuf sa ca at moomee rek ci waxtu woowu mu toll rek la koy fay waaye bu fekkee nekkoon na ca ay ati at du tax ñu wax ko ne ko dañu topp at yi weesu yépp nga fay ko ndax moom njublan jotaliwu ko ca woon way wee nga weesu moo atte atteb ki bayan ca suuf sa te njublan taxut dañ ko ko dogaloon mbaa ñu luye woon ko ko mbaa mu doon ko ci demee noonu am ko wax na ne moo ko moom ba yoon ne ko yaa ko moom kañ wax na day fay luyaasu suuf sa rek ca waxtu woowee ñu ko fekk la ko jiitu woon du ko fay kii nag kenn ke waaye bi yoon moom bayu ca daa tabax ca suuf sa mbaa mu jëmbat cee garab mbaa mu dundal ko defaraat ko ba nga xamee ne daal moom defaru na am ko wax ci yoon ne maa ko moom nag ba yoon ne ko wax nga dëgg kon yaar benn moom mi nga xam ne moom moom suuf si ndax yoon ne ko yaa ko moom mu nangoo fay ki ci nekkoon peenam muy tabax muy garab muy leneen mu fay ko peenam koo ko génn mu boole suuf saak la ca nekkoon wala mu bàyyi la ca nekkoon fay ko xaymay pàkkub kese suufus kese fu war a toll rek mu fay ko lu toll noona moom mi ci nekkoon nag far moom lépp bu ñu nee ki moom suuf si te fekk ñu def ci peen fayal peen bi te moom lépp ci suuf seeg peen bi mu bañ ñu ne ka fa defoon peen ba fayal xaymay suuf si rek boole yaar yëpp moom moom itam mu bañ ñu ne leen kon bokk leen ko ci kaw kenn ku ne am ca lu tolloog wëlëru la moom su fekkoon day ndakaaru wala tuuba nga xam ne kon suuf saay ëpp solo la ca kaw bu doon ci dëkki kaw yi itam mu mel ne buñ ca tabaxee tawa yaay ëpp solo jëmmi suuf sa mu ne bu doon ndakaaru ñu xayma ne jëmmi suuf si moom war naa tolloog ñaar fukki million ñu ne la ca kaw nag ci peen war naa tolloog fukki million kon bu ñu bokkee gàntu li leen wax li leen yéen a ko bokk ci kaw nag buñ ko defee ñetti xaaj kee moom suuf si moom moom ñaari xaaj ñi kee moom pen ba moom moom benn xaaj ba mel ne kon buñ koy luyee buñ dee seddoo luyaas ba buñ ko defee ñetti xaaj ka moom suuf sa mooy moom ñaari xaaj ña ka moomoon pen ba moom benn xaaj ba juróoma ngi nii ñoo xam ne lañ yoroon daa ko jariñoo ba muy génn seen loxo itam kenn du leen wax ne leen da ngeen di fayaat la ngeen ci jotoona jariñoo ka ci jëkk mooy ku jëndoon dara tàmbali koo jariñoo gannaaw ba mu gis ca sikk soo xam ne yoon nee na ko sañ ko koo xàcc bu demee xàcc ko ñu delloo ko njëgam duñ ko wax ne ko li nga ci jot a jariñoo faawu da nga koy fay loola lew na ko ñaareel bi mooy ku ñu jaayoon jaay goo xam ne yoon nee na awutu yoon te it tebbi njaay mi ka jaayoon jëlaat lam jaayoon ka jëndoon jëlaat njëgam wéegut bu fekkee ne ka jëndoon fekkoon na mu jot caa jariñu itam dañuy xàcc rek njaay ma te moom mu jëndoon ba tàmbalee jariñu lam jariñoo kenn du ko ko laaj ne ko da nga koy fayaat muy ñaar ñetteel bi mooy ku ñu dab ci yoon nangu la nga jëndoon asufatu dab dañ ko wax ci kanam tuuti soreetut mooy boo bokkeeg nit suuf mbaa yu tax ci suuf te mënta jóg te séddoowu leen mu jekki-jekki jaay wàllam da nga am sañ-sañ ci yoon dab ka nga xam ne moo jënd delloo ko njëggam jënde woon boo dikkee yow moom lépp kookee nga xam ne nag moom leen dab nangu lam jëndoon delloo ko njëgg bu fekkee jotoon na caa jariñu itam lam ca jot a jariñoo kenn du ko ko laaj ne ko da nga koy fay bi ci topp nag mooy ku nekkoon ci suuf mbaa ci leneen ak njublam andiwu ko ca ni ki da koo donn mbaa ñu may ko ko mbaa ñu liyee ko ko kenn dikk na ko wax ci yoon ne man maa ko moom yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom ka ca nekkoon lam ci jote jariñoo kenn du ko ko topp mel ni tey bu doonoon kër ci mbokk mu génn àdduna dëkk ci lu yàgg mbaa mu daa ko luye di fayu luyaas ba gannaaw ba am ku ne maa ko moom ci yoon yoon ne ko wax nga dëgg ko it dañ koy jële ci loxoom rek waaye du tax nag moom ma ci nekkoon ñu koy fayu lam ci jota jariñoo muy ñeent juróomeel bi nag mooy ku ñuy sisir fekk am na luñ ko jaayoon loo xam ni fayutoon njëgg dañ ne woon lu mel noonu boroom bu nangoo mën naa jëlaat lam jaayoon kon su ko gënalee mën naa jël lam jaayoon rek moom dem bu fekkee nag kookee ñuy sisir jotoon naa jariñoo loole itam tax ñu wax ko ne ko kii day jëlaat lim la jaayoon te fayoo ko te it li nga ci jot a jariñoo da nga ko koy delloo déedéet lam ci jot a jariñoo kenn du ko delloo juróom ñi moom li ñuy wax alxallatu mooy lañ ci jot a jariñoo ca loolee kenn du leen ko laaj mukk mukk